ak di ñu ci biir lébu RMD TV daleen ak jàmm ci ay xibaar Ayib Daffé ginnaaw ba mu waree mën a jóg jubali fële nga xam ne moom mooy ca DGE dem li nga xam ni moom moo di fichier de parrainage bu président Ousmane Sonko ba tax na nag moom Ayib Daffé li ñu mujj jot ci ay euh, xibaaram rek mu bind ko ci page Facebook am mu ngay xamle ni bu bisu ma waxi jotee rek dina wax bu bisu jàkkaarloog askan wi lancé li nga xam ne moom moo di benn message jotee rek dina ko def ba tax na moom Ayib dafe nag euh, dafa mel ni ci li ñu sukkandiku ci ay xibaar euh, du dafa jëlee li nga xamante ni si moom mooy lu ko neexul la ba tax na daf ci bëgg a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay leader am ba pare dog di ko yeggee li nga xam ne moom moo di askan wi moom Ayib Daffé nag euh, bu ñu sukkandikoo ci moom ginnaaw ba mu yëgle woon doon na xamal ni bépp décision bu mu jël rek dafay xaar ba waxtaan ci ak leader bi nga xam ne moom moo di président Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ba tax tax na Ayib Daffé nag kenn ku ci nekk ràññee na ko loolu ci li nga xam ne moom moo di rangu politique gi ci jamono ji ñu toll nii turam saf na ca sàpp ba tax na moom Ayib Daffé nag nit yi ñu ngi koy xaar ci lu bëree bëri ginnaaw bi nga xamante ni si juge bi daal di nay jël pour Ousmane Sonko daat koy delloo ci liste électorale yi ba tax na nag moom Ayib Daffé tey jii rek lañu ñu war a mën a dem daal di récupérer loolu nga xam ni moom moo di fichier boobee ngir ñu mën a amal seen yooyu nag am na ñu ci bari la ñu xamle mooy président Ousmane Sonko ay nombre de député mat na ba tax na loolu rek mën na ko yóbbu fële nga xamante ni fa la ñuy wàllum ku jéggi foofu lay amle ba tax na nag nit ci bëri ñu ngi xaar DGE ba xam dinañ euh, respecté li nga xamante ni moom mooy euh, droit yi nga xamante ni si juge bi jël na ko ñu ci bëri daal ñu ngi leen di xaar foofe noo noonee ba tax na nag mbokk yi woy leen di abonné continuer di activer seeni cloche de notification ngir mën a jot suñu information bis bu nekk jaa ngeen jëf